waaw ndaje bi ñu waral tey ci euh, Thiénaba di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février euh, ñaari euh, fànn la benn fànn bi dañoo def karawaan maanaam di sensibiliser di wax nit ñi ñu génn dem bindu ji di wax nit ñi ñu génn dem defi seen carte électeur ñi nga xamante ni amuñuy carte ñu jàppale leen ñu dem wuti ay carte donc papier yi ci des ñi nga xamante ni fàtte woon nañ ko ñu fàttali leen ko pour daan euh, Thiénaba euh, seeni nit bindu le maximum possible déjà ñu ngi ci yoon wi Eh, ñu ngi bindu presque ñaar téeméeri nit deux cent ñaar téeméeri nit juróom fukk la ñuy bind daanaka bis bu set fi mu ne ñu ngi ci presque six mille personne yu ñu bind des na eh, ñu ngi yaakaar ay dix mille personnes yu ñu war a mën a bind parce que population bi day augmenter eh, mais niveau électoral ñi nga xamante ne am nañ dix huit ans et plus mm, am yaakaar nañ ci bindu dix mille personnes. donc ñu ngi dans le temps ñu ngi ci euh, euh, euh, période bi nga xamante ni daan fàttali leen pour bañ a bañ a bañ dara bañ a bañ a bañ a suuxa sooxe ci lañ nekk loolu nag dañ koy def ngir jàppale président Macky Sall ngir canaba ci boppam nit ñu bindu waaye buñ bindoo mën a ànd dem wote ji loolu mooy phase bu njëkk bi ñaareelu phase bi nag mooy jàppale nag militants yi jàppale suñuy nit yàlla def na ñu ngi politique yàlla def na haut conseiller lañ Macky sàll euh, teg ci suñu bopp ndomba tànk yu am solo kilifa gi nga xamante ni mooy ci suñu kilifa di Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ma koy gërëm bu baax euh, au passage euh, di ko di ko ñaanal gudd fan ak wér Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom itam wóoluñu def ñu haut conseiller kon nag suñu taxawaay mooy dëgëral suñuy tànk jàppale jigéen ñi jàppale nit ñi nit ñi mën a bindu waaye it nit ñi bu ëllëgee ñu mën a ànd ak ñun dem woteeli président de la république loolu mooy ñaareelu phase bi muy kees yi ñuy jël kees yi benn kees bu nekk mu ngi dikkee fukki junni e, juróomi junni yi mooy li koy defar ak e, ki koy ki leen di jàng forme formé juróomi junni yi mooy liñ leen di def den leen di jàppale e, loolu mooy kees bi kees bi fanweeri nit ak juróom lay jël fanweeri nit ak juróom yooyu nag boo ko boo ko jëlee def ci ay kees yu bari ah day tax biir ba Seck rek bëgg naa fee taxawal fukki kees biir bi ba sekk waaye nag des na ay ba Gare des na ay yeneen dëkk ay Kayre des na ay yeneen dëkk yoo xamante ni ñoom itam eh, dañoo soxla ci kees yi yeneen waaye ay jaan commune bi yëpp daan commune bi yëpp boo paree commune bi yëpp di nga am lu ëpp kees donc dama koy def par mois mois bu ci nekk ma déposé loo war ñeenti kees juróomi kees mois bu ci nekk ma déposé mat ñeenti kees juróomi kees su ma ko defee fii mois de juin dinaa def lu takku eh, dëkk bu ci nekk daanaka di nga am kees. waaw euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax pour terminer lancé par rapport ak euh, ñi nga xam ni caravane bi àggul si ñoom. waaw ñi nga xam ne caravane bi àggul ci ñoom tey ndax damay damay def ay caravane ci yeneen région yi ci yeneen euh, village yi donc tey Thiénaba la woon Thiénaba Gare ak Touba Gueye ak li ko wër waaye bu ëllëgee nag damay demaat ci yeneen damay dem zone nord damay defaat yeneen activité li ma leen di fàttali daal mooy kenn ku ci nekk na jóg. képp koo xamante ni dese nga mën a am lu la bind maanaam photocopie wala xamuloo noo koy defaree boo limee ci commission bi di nga fa fekk sama ndaw sama ndaw a nga fa di jàppale chef de quartier yi pour ñuy bindu di leen photocopier gratuitement di leen defaral ay certificat de résidence gratuitement di leen jàppale ci ñi nga xamante ne amuñu loolu pour ñu am ay këyit am na ñoo xamante ni jotuñ mosuñu sax am ay këyit ñu dañ leen di jàppale di leen conseiller ñu mën a dem tribunal man faa def ay euh, papier ba mën a am extrait de naissance ensuite ñu ñëw ñu jàpp leen ñu inscrire kon konaan loolu mooy eh, taxawaay yi taxawaay yi daan mooy fexe ba ni ñu bindu lu gën a bari kon nag ñu ngi fàttali mbooloo mi ñu ngi fàttali waa Thiénaba ñu ngi fàttali waa département bi ñu ngi fàttali ñëpp ni leen daan eh, na kenn ku ci nekk xam ni mbind mi eh, seen njariñ la dinañ ci am seen carte d'identité boo xamante non seulement Sénégal rek la yem waaye day dem ci région bi boo demee Mali dafay baax nga dem Côte d'Ivoire CEDEAO Euh, donc dina la jëriñ it nga mën a nekk am sa euh, carte électeur benn carte d'identité bi dina tax itam nag nga ami kayit parce que nit ki tant que amuli kayit daanaka bokkul ci ci ci day day euh, taxawaayam day des donc dañoo bëgg ñëpp ami kayit bu ñëpp amee kiit ñëpp wootewu kenn ku ci nekk xam li nekk sa dëkk kenn ku ci nekk nga jàpp bu ko defee euh, mu dox su ko defee président bi ak xalif général bi nga xamante ni moo fi nekk ci lu ni ni moom itam mu yëngatu biir Thiénaba lépp loo xamante ni jafe ngi fi moom la ñuy wax mu jóg euh, kooku nga xamante ni mooy xalif général bi euh, kooku it ñu ngi koy gërëm bu baax di Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck di ko sant di ko ñaanal gudd fan ak wér ah, di bëgg itam ndam. ndax bu Thiénaba sekk amee ndam Baye Cheikh am na ndam bu Baye amee ndam xalif bi euh, le président de la république am ndam ñun ñii leen jàpp itam euh, ñu gis ni euh, liggéey nañ liggéey bu baax kon nag fii nga xamante ni mooy temps liggéey bi ci la ñu nekk ci inscription yi ak ci jàppale militants yi ci lañ taxaw pour daan Thiénaba am résultat bu baax fi mu ne nag suñu rythme bi ñuy doxee baax na yàlla na continuer noonu ñu ngi koy fàttali di def ay caravane pour daan kenn bañ a toog ba bis ba ba carte yi jeex amoo carte voilà may defar kees yi wutal leen carte wutal leen formateur eh, defal fond ci ci ci ci kees gi jox leen ñuy di continuer di natt ñoom nag ñooy seet niñ ko bëgg a doxalee suñ leen defee noonu ba pare nag dikk nag lu ñu am jàppale leen ndax fekk na groupe bi sax na ba pare comme groupe bi sax na ba pare bu ëllëgee suñu amee ONG wala dara dikk mën caa jàpp ndax dinañ xam ni fii doo ko jox kenn nit ab groupe nga ko jox mooy groupe yi nga xamante ni ñoo toog nii eh, ñoom la ñuy euh, eh, jàppale nii ñu ko def fii itam noonu lañ koy defee ci village yëpp mais biir Thiénaba sekk rek bëgg nañ fee def dix caisses eh, dina tax ñoom ci seen bopp ñu mën a toog waxtaan ñun ci suñ bopp itam ñu xam ni ñii kat ñu ngi ñuy jàppale bu ëllëgee bu ñu leen soxlaa surtout ci élection yi di ñëw ñu mën ñoo jàppale jàppale président de la république ndax ñu itam président de la république la ñu jàppale la ñu di jàppale président bi di jàppale bay Cheikh Ahmed Tidiane Seck ndax it Macky Sall taxaw na di jàppale xalif bi jox ko euh, au conseil muy man mi taxaw di wax ñi itam ñu dellu bëgg ko rendre monnaie bi jàppale Baye Cheikh jàppale président bi ba xelam dal ba mu am ndam cena ba ñaan itam ni mu koy amee ndam Thiénaba mu amee ko ni ci département bi yëpp